dal leen ak jàmm ci seen sport 221 Keita Diao Baldé mën na delluwaat foofu la ci Italie bu ñu sukkandikoo ci kayit yi xibaar yi moom international sénégalais bi lee gisaguñ ko benn yoon depuis championnat bi tàmbali ak football club bii di AS Monaco muy firndeel ne rek kii di Diao Baldé bokkul benn yoon ci plan ki nga xamante ni moo di Niko Kovac nekk entraîneur bu bees bi foofu la ci AS Monaco jamono yi nag xibaar yi lu ñu firndeel foofu la ci Italie moo di kii di Diao Baldé jege na loolu ngir signé ak football club bii di Sampdoria nekk foofu la ca Italie kon gannaaw bi nga xamé ni ki di Diao li ëpp ci carrière am la ci Italie la def mëna mën na fofu foofule gannaaw bi nga xamé ni entre 2013 ba 2017 ki di Diao Baldé mu ngi fofu la ci Lazio avant mu fay delluwaat ci atom 2018 2019 gannaaw bi nga xamé ni AS Monaco ñoko abalon football club di Inter de Milan jamono ni nak ki di xibaar li ñu firndeel mo di ki di Diao Baldé jégena ngir signé football club bi di Sampdoria Sampdoria sax tey jii kayiti xibaar di firndeel ne signé nañu ñeenti joueur ci benn bëccëgu tey bile jamono yi nag fi ñu teg seen bët wala fi nga xamante ni foofu lañ fokk su mooy signé ki nga xamante ni moo di international sénégalais bi la di Diao Baldé Keita kon kii di Keita Diao Baldé bu fekkente ne dem na foofu la ci Sampdoria dina fekk ki nga xamante ne moo di rakkam bii di Ibrahima Baldé mi nga xamee ne mu ngi fubal ci équipe jeune bi foofu la ci Sampdoria nekk foofu la ca Italie dañuy ba tey ci transfert yi Idrissa Gana Gueye nekk foofu la ca Paris saint ba tey jii kayiti xibaar yaa ngi xam le ne mën na delluwaat foofu la ci Angleterre gannaaw bi nga xamee ne lu toll ci ñeenti club jamono ñu ngi koy topp bokk na ci Manchester United Wolverhampton tey jii kayiti xibaar yaa ngi firndeel ne West Ham United ak Crystal Palace jamono yi dugg nañ ci coow li ngir signé ki nga xamante ne moo di international sénégalais bi di Idrissa Gana Gueye moom Idrissa Gana Gueye nag jamono yi muy gañuwaat place am ci football club boobale di Paris Saint-Germain tey jii sax ñu am seen ndam bu gannaaw bi nga xamee ne dañ nekkoon ci jafe-jafe depuis saison bi tàmbali ci Paris Saint-Germain googu la des gannaaw bi nga xamee ne coow li xewoon na diggante Paris ak football club boobale di Olympique de Marseille ci jogante gi nga xamante ne ñu ngi ko doon football ci dimanche ji ñu wan ginnaaw kilifa yi nga xamante ne ne bokkoon nañ ci coow loolu kii di Kurzawa teg Neymar nag moom ñaari jongante lañ ko teg ñaari matt yi nga xamante ni du ko fubal ak benn match bi nga xamante ne suur si lay doon kii di Paredes moom teg nañ ko lu toll moom itam ci ñaari match ak benn match bi nga xamante ne du ko football bu dee ci côté Olympique de Marseille kii ñuy wax Amavi moom teg nañ ko lu toll ci ñett matt yi nga xamante ne ferme la du ko football waaye kii di Benedetto moom benn match lañ ko daan kon lii mooy daan yi nga xamante ni jógee na ci coow loolu xewoon ci diggante Paris Saint-Germain ak Olympique transfert foofu la ca bitim réew FC Barcelone gannaaw bi kii di xibaar di firndeel ne accord am na ci diggante Olympique Lyonnais ak FC Barcelone ci transfert kii di Memphis Depay kii di xibaar yaa ngi xam ne ne jamono loolu dafa tagga tembe kii di Memphis Depay ba fii ñuy waxee mënagul a dem foofu la ci Barça li ko waral nag moo di Barcelone dañ soxla ngir jaay lenn ci seen joueur balaa keneen di dugg lii nag ki ko xam ne moo di Ronald Koeman bu dee ci côté Real de Madrid jamono yi ki nga xamante ne moo di Sergio Reguilón kii di xibaar yaa nga xam ne ne mu ngi foofu la ca Angleterre di amal li nga xamante moo di médicalam ngir war a dem foofu la ca Tottenham gannaaw bi nga xamee ne déggoo amoon na sax ci diggante Manchester United ak Real de Madrid waaye li ko yàq moo di buyback clause bi maanaam Real Madrid daal dañ wax ne ñoom rek ñoo mën a jëndaat kii di euh, Sergio Reguilón ngir delluwaat ko lii nag la yi nag accord am na ci diggante Tottenham ak Real ñoom nangu nañu loolu kii di Reguilon mu ngi foofu la ci Angleterre ci jamono yile kii di xibaar yaa nga xam ne ni ki suba ci alxames ji dinañuy fesal lii di transfert boobule Sergio Reguilon nag ak demam foofu la ca Tottenham war nañoo fay Tottenham war na fay Real de Madrid lu toll ci 30 millions waaye nag bu ñu ko soxlawaatee mu war a jógee foofu la ca Tottenham dellu Real dinañu fay lu toll ci 35 ba million millions d'euros ki nga xamante ne moo di Gareth Bale moom itam këyiti xibaar yaa ngi xam ne ne mën na topp Sergio Reguilon foofu la a delluwaat foofu la ca Tottenham ci anamuk able ko séddoo kon kii di Bale war na dem foofu la ca Tottenham buñ sukkandikoo ci këyiti xibaar yi accord nag amagul jamono yi négociation na delluwaat fekk ji ki nga xamante ne moo di Sergio Reguilon